waaw waaw jaajëf jaaf jaaf maa ngi lay bëgg bu baax maa ngi lay bëgg bu baax. <laughs> bay ba xaaral na kii pa gars nu mu dimbale ma live bi nga ma nga may fàttali ba di ma rubee nii. amoo ñu demandé quoi. <laughs> benn con la fii rek xam nga booy moom seen lépp rubee la. yee jaajëf jaajëf jaajëf. yee waa Tamba yee dégg waa Tamba bu baax. jaajëf ay eh, rek muy Tamba jaajëf waaye. yee bëggee bëggee. waa Matam. yee waa ma Haalpulaar yi maa ngi leen nuyu de. misaal bi yow kañ nga mën lire <laughs> eh, <laughs> <laughs> yee. jaajëf waay. mais wuy ma génn. waaw damay damay laaj. dimbali mais dama may mbokk si laaj. maa ngi bokk si laaj xam nga lan la moom li may wax. nekkal nit dama sax place nga xam ne ngeen sax daal di commandé rek tamit. waa Mbaye. yee Assane Sakho. waaye yee la daggeer xaw ma lan. lingeer. sa gàncax bi ni leerul amul lenn loo xam ne ma du ma ko wax te ma si jaar mu ma loolu dégg mën na tus nag dara du xew xeer rang rang noonu laay def man man laaj am lu ma expliqué man lu ma war a wax dama ko na tardé pas am lu may ragal dix mille mais yow nooy fekk nit di laaj nga naan ko ay dix mille ak yow bi la waa bu ma amee ci yow soxla waruma laa waruma mën a ñëw sama jeu laaj ñu topp na am ay dix mille ak cinq mille ak cent la la ma sa problème mais am leen xel Sénégal lu ma tax ñu ñàkk xel da ngay fexe ni ki di pour sax ngeen ko pardon douze fois ngeen ko xaaral ma ñëw mais. waa ba léegi man su ma amee sama soxla. du ma la ko wax waaw léegi lan ah. dama ne nga may ma lii nu mu ti vingt cinq mille damaa bëgg a sama tante suukaru koor xam nga li ma yore woon yëpp séddale naa ko fi mu toll yoruma dara te ñi ngi waaj a korite xam nga yaay sama mag nag. suukaru koor. waaw wala yow da nga iblis ngaan loolu wala yow la loolu amul n'est-ce pas suukar koor loolu yow amoo ngay ñañ ndax ay suukar koor waa léegi suukar koor lu ci jar iblis ak naafik ak say yàlla waxu ko si alxuraan du sariya du farata du sunna du dara te say jàmbur yaa ngi tas macro kër yi lu ne am si temps ndax ay mais la muy suukar koor xamu xorom koor xamu dëluñu koor sama armoire am na deux mille francs wa dama deux mille loolu la am nga am ay vingt cinq mille ñu toog jël deux mille nag suukar koor teraanga rek la dama nga am dafa bokk ci lislaam yow waxuma ak yow de yow defuma ko nag pour ay suukar koor dama la may deux mille francs ngir li nu bokk dama la ko may man soxlawuma deux mille de kon nga bàyyi waaw kon nga mais damay a mais deux bu mu mënee may tamit ma àgg a laaj yow waxuma ak yow de. da maa leen di bëggee bu baax a baax di leen bëggee. ci ma wi ma. la si mille francs ma sama waay maa leen di bëggee bu baax a baax di bëggee gars yi nekk si live di bëggee waa Ndula ku Pentoun Kousana. gars yi maa leen di bëggee maa leen di bëggee ba xanaa dama war a jobee cent yi maa ngi nuyu waa Ndula ku Pentoun jëm Kousana jàpp jëm ñaajo. Rang. nuyu waa Ndar. <laughs> nuyu waa Ndar boobu wala. yow nga dëkk Ndar wala nuyu waa Ndar naan ma ku fekk tuuna kusaan naan yow la moo tax ngay pour nuyu waa Ndar li moo tax mën a yow duñu jubóo parce que dama lay waxi nit nga may waxi dof neel waa Ndar. jaay njëw nuyu waa Ndar. sa waay doo nuyu waa Ndar balaa ngay coupé direct. waaw damay nuyu waa nuyul waa Ndar. <laughs> dugal waa Ndar waa goxu mbaaj nuyu leen. waa Ndar ten ten ten ten ten naan la maa ngi tudd ngeen gars yi gisee ngeen waaw maam xanaa ku la woo kay bu la waxul jox la am ah, dama la doon woo rek pour wax la maa ngi tuub xam nga ce qui s'est passé la dernière fois ak wokal xam nga à la base bugguma ko woon quoi parce que yow sama gain mm-hmm. bu baax nga xam nga da ngay nekk bi di waxtaan ak gars mm-hmm. di leen tegaat ci code mm-hmm. mais xam bu amee lu am du du raison bi tax nga war ma mën a aj quoi waaw mais yoo xam nga li am noo waaw mais xam naa ni mu fa demee mais xam nga ah. maam wokkal moomu ci dugaloon quoi non man man la may son problème bay la mayoon ndayu doomu jàmbur yi ngay jël di leen macro di jël xamu wokk la xamu xosal ma ay ñoo xam ne ni seen liggéey yëpp dem si kër jàmbur yi teg nit ñi xel di teg dil nit ñi di jël doomu jàmbur di ko màkkuru ak ay ñeneen di ko may ñeneen mais mais affaire salte yooyu noo mën a gémme loolu may wax mu naan woy man producteur la moom waaw dañuy dem studio ñu bàyyi ci gàll bi mu nelaw ñu jàpp xale yi yëpp mu xaañ leen mu tëdd xale jigéen yi après yow mu jox la benn weccit loolu ban sens la ko gars yi di ko dund ci jamono ji di màkkuru doomu jàmbur yi di jaay ay doomu jàmbur di ko jox ay góor yàlla man bañu mais da war a nekk nit nga def fu nit def fu jullit xam ni doomu nit ku baax bi sama rakk nga boo bëggee dund si gàlle bi nag mën nga fi ñëw mais genre dund bu salto bu ko dund ak man bu dund si gàlle bi mun naa jaar naa mën nga fa ñëw mais ak jàmm ak salaam pay ni dund ñoom mu ngi ok loolu rek laa bëggoon ngeen moom mu ngi baax ah coolul quoi sama geen warum baax nga tub wér nag rafet na ko frip jëleen ko ko frip